أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم والعطايا حفظ أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم والعطايا حفظ asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu seetaan ci Mouslih TV ñu ñëw leen fii tey ci Diamaguène ak monsieur Ousmane Diop président CDD monsieur Ousmane Diop ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi leen di fay waa Mously TV. gannaaw bi ñu leen nuyoo ziar la euh, ñu gis démb da def benn sortie ci réseaux sociaux yi di wax ci maanaam jàmm gën saa su nga xamante ne taw na rek wala nawet bi ñëw na rek problème yi ñuy jaaxanteel ñu bëggoon xam tey problème yooyu noonu yan la. waaw comme ni ñu ko waxee démb rek yéen a ko gisandoo à chaque fois quoi mu taw ñun jàmm gën population jàmm gën lii la ñuy vivre. mooy dëkk bi day am ndox mënuñu comprendre dëkk boo xam ne benn porte loo am benn entrée saabu tawee ndox mi fees de loolu moom mënuñu ko comprendre en tant que benn habitant boo nga xam ne jàmm ga la nekk dëkk doom doom doom doom jàmm ga loolu moom mënuñu ko accepter mënuñu ko. li jëm ci côté mairie bi ñoom nee nañ seen compétence matul ci ñu def ay canal mais comme que ñoom la fi yàlla teg ndax jàmm gën dafa nekk en marge ñaari commune muy commune Tivaouane Diacksao ak commune jàmm gën Sicap Mbao ndax jàmm gën Esprit la poste Thiaré ba Fass Mbao mooy jàmm gën waaw ñoom seen liggéey nag ñoom tey jii ci dëkk bi mooy ñu boole woon seen force ñoom ñoo nekk parti au pouvoir ñu ñëw évacuer ndox bi lañ bëgg leneen li mooy ku ci mel ni Fatou Binetou Ndiaye c'est un député maire ah moom dafa war a ñëw jàppale ñu wax jooytu suñu problème fii solution définitive lañ bëgg mu defal ñu ay canalisation bu tawetee jàmm gën am fu ñu aw loolu lañ bëgg solution définitive bëggatuñu ay moto pompe yooyu di ko nga ci chaque année déedéet bëgg ñu daggal ñu ay canal même pas cent mètres ci tali bi pour ñu ndox mi évacuer wu loolu lañ bëgg waaw loolu lañ bëgg. waaw ñu ngi gis ne démb yaa ngi wax même pas 100 te bu tawee. Mhm. ñu am ay jafe-jafe. jàmm gën xam ne ñaari commune la. Mhm. kon taxawaay bi si diggante ñaari maire yi kon dafa des daal. non taxawaay bi ku ne gis na ni des na ndox boo xam ne barki démb ba léegi moo ngi fi mu tax mënuñu ko évacuer loolu kon seen taxawaay des na ndax tey jii bu dul dara même mu tawee tey ñu wut ay moto pompe yu baax utu ay raakool dinañ ko affecté encore une fois li ma wax affaire bi solution bi du ay moto pompe dañoo bëgg ay canal yoo xam ne bu tawee mu dam loolu la askan bi bëgg. yow en tant que président CDD ana ban taxawaay la jeunes yi am. maanaam ndox mi. waaw collectif bi moo ngi tudd collectif pour le développement de Diamaguène développement moom boo ko waxee bàyyi woo dara daf bàyyi woo dara encore une fois li may wax sama bopp rek di ko wax jeunesse su di ko wax population Diamaguène mooy dëkk bi ñu gëm ni keneen du jógee faneen du ko defaral. ñun suñu bopp ñoo war a mën a jug boole suñuy force takkandoo jàppandoo xàccandoo dóorandoo defar suñu dëkk mais à chaque fois da ngay gis su ay problème amee jàmm gën ñenn ñi ñoo koy porter combat bi ñenn ñi toog ci jotaay ataay ñenn ñi toog ci boolu añ te problème bi loolu faju ko mooy tey ji dëkk ci dëkk bi ñooy àndandoo ñëw ci collectif bi xam ne collectif bi du sama problème du problème mu ma sàmm du problème mu def problème mu jàmm gën la te jàmm benn ñaar ñett mu ñu ko def ñun ñëpp nañu àndandoo boole suñu force yi ñëw liggéey dëkk bi malheureusement nag maire yi comprendre ñu suñu liggéey pour ñoom dañoo ñëw pour contrôler leen wala pour yéeg seen kaw wala dara déedéet encore une fois jàmm gën moo ñu ñor kenn mooy suñu adversaire fii mooy ki jug pour dëkk bi dellu ginnaaw dëkk bi nag pour mu dellu ginnaaw weesuwul mu taw ba pare autorités yi di sàggal ndox bi di fi am ay une semaine ak trois jours loolu dootuñu ko nangul ci kenn dootuñu ko langoo ma sàmb dootuñu ko ma demba dëkk nag bu ñu demee ba dëkk boo xam ne amul dispensaire bu baax dëkk boo xam ne amul armeel suñu armeel yi fees na dëkk boo xam ne doo sax mel ni ay nit dëkkuñu fi loolu dafa ñaaw dafa neexul ci xol waaw di leen jaajëfalaat waa Mously TV di waxaat waa jàmm gën rek man leen ñëw ñu jàpp liggéey suñu dëkk xam lii ñuy def nii dafa luñ ko ma sàmm dafa luñ ko ma demb dañ koy def rek ngir jaamu ci yàlla suñu borom ndax fi nga dëkk moom di ko saytu ci jaamu yàlla la dëkk encore une fois ni ngeen di mobiliser bu mbëri di bëri bu nawetaan amee bu leneen amee yoo xam ne dañ ko jàppee sax ni maanaam du sax priorité ci dëkk bi no ngeen def mobilisation bu defar dëkk bi jógee na ngeen def noonu ñëw jàpp ñu liggéey dëkk bi encore une fois ñoo ngi jégaluwaat ñëpp di siyaar ñëpp di leen jaajëfal yéen bu baax a baax jërëjëf monsieur Ousmane Diop ñu ngi lay sant bu baax kon mbokk yi lii lañ la andiloon ci jàmm gën tey waa Mously TV ñoo leen ko doon jox ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen sant di gërëm euh, ñu ngi jëfal tamit suñu cameraman bi nga xamante ne nii mooy Serigne Bara Diagne ضؤين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم وعطايا حلم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم وعطايا حلم